dal leen ak jàmm ñu xëy taxañ yéene kaay xëyndoo tàmbale ko témoin quotidien témoin quotidien nag mbégteeg bànneex nag la daal xëy ci diggante Ousmane Sonko ak Barthélemy Dias législative yooyu nga xamante ni gars dugaloon ay recours ngir rek ñu gàntal leen seen i candidature bi ne conseil constitutionnel daal dinaa booleem recours nag jàpp na ne fi ñoom ñaar ñooñu ñëpp daanu mën a bokk ci élection yi moo tax nataal ba fës na mbolem rek yoo xamanteni ñu xon nañ ko fofé dal dinañ ko rejeter wal fajir yene kay di xey di amu tiit ndax lan ndax nee na liste ya bëree nak bo moytu nak ay rassemblance bulletin yu bari daan ci am ay démission risque de confusion yene kay bi ne lolé mo nara am nak bo moytu ci élection yi nga xamanteni ci ci ca la ñu daal dee dëgmal yéene kaay ne digënté nak Macky Sall ak Amadou Bambir mo nga moo xajam dé a petit meurtre pré-électoral la ko yene kay bi tuddee ndax coalition jamm ak jëriñ bu Amadou Ba attaqué nañ ko daanaka fépp affaire bu Macky Sall dafa décider nak baña dem ak li nga xamanteni ci modi inter coalition bobé AFP Moussa Niass mo nga accusé ay démarche solitaire boo xamante si la ko tax a moo di fexe rek bu am irrationalité Abdoulaye Dièye naka tête de liste départementale jàmm ak njëriñ démissionné na foofee ca Thiès de mbir mi naka tàmbali naa xajam de ndax boo xool naka yëf fu nekk lay tàngee ubbil yéene bi Les defeere de boo moytu ndax daan nañu jébal li nga xamante si moo di procureur bi Jigi Diop enfoncé par les fournisseurs qui naka fintoon yi da doon jox ay koppar Walfadjri nee a ngi wax rek waaye marché moom gaa yaa ngay jooy de ndax prix moom fi ñu toll moo ngay gën a yéeg marché bi kenn mënu tolaal ndugg lépp a cher nag yéen bi ne la ko jaaxal mooy patti pataar bi nga xamante ne si gouvernement moom la nekkee ñu ne déetawaay mbirum ONAS ak ASER nag daanaka teg na si Sénégal gàcce bu yàq crédit crédibilité am yéene kaay bi mu wax de président Diomaye fi la mu war a def rek moo di wax ngir dëgg bi leer ci yooyu dossier waaye mu ne parti pataara rek boobu ak léegi yéewul ci yàbbiwul ci turbine yéenekaay ne subvention projet électrification naka par ARCOP yéenekaay bi ne gën caa tuuti junneeg juróom benn téeméeri gox goxaat yoo xamante ne ji courant moom dañ koy dégg rek koo gis yéenekaay bi ne bés bi le jour di kaan na naka ci thermique thermique terre boo xamante ne si daanaka si jamono ji ña fay jël nag dañuy étouffé yu terre bi tàng na terre bi yéex na ba ñuy jafe-jafe yéenekaay bi naka ñoo ngi alerté boobu ak léegi laataa naka jiyee di fi am ministre des transports interpellé nañ ko ndax jamono ji terre bi la muy sukuraat na de ndax i jafe-jafe yéenekaay bi ne ndax ko nag arrêté xaaj ci xaalis bi nag fi mu toll nii gaa ñi nañ ko ay prime nga ni ma lan le mandat yéene kaay dikkaat ci engagement yi nga xamante ni si ministre de la santé jot na koo jël waa andi gësëm ñi bëggoon a gësëm doon gësëm nag yéene bi ne arrêté nañ boobee gësëm teg nañu suuf ndax am na ci yu bëri xamante ni si déggoon nañ ko ak ministre ministre bi mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg